dole sant rek waaw luñ kiyee nag laa leen ne taxawaayu sëñ Matar moom ci kër sëñ Mourou Moustapha diiram maa ngi fi moom moom dinaa fa représenté waa Mbayeen ndax xam naa ne xëy na ni may mën dem ak ñoom sëriñ bi dina ko bëgg waaye du ko mën waaw moo tax daanaka fu nu dem demal fa kër ga rek am moom ci barke mag ñi rek si Moussa Mbaye moom ku ko xam-xam ko ci Daaru Xudoos waaw te it si njàngam ko fi wutet ko xam-xam ko ci Daaru Xudoos waaye noonu la demee moom miit wax dëgg yàlla noonu la mel hmm. xëy na nag day am ñu dem lu mu mën a yooyu hmm. sëñ bi bi mu fi nekkee kenn daaw dem ñoo ko daan demal daanaka hmm. yeneen ndaje yi moom yeneen ndaje ñetti seex yi da cay teew di ci teewal barki demb dong la yóbbu peppam fukki saako juróom yóbbu ko ne joxe ko addiya lu bokk teg liggéey bi ko sëriñ bi jox ci biir kër ga liggéey booba it raax nañ biir ba biti bi ba ñoo nga ca loola la sëñ bés taxew boo gisee ñu nekk jëwriñ ji noonu rek ci loola la nekk daal waaye ne kër sëñ mataar moom ñu ko xamee ci daaru xuddoos daal nun diiram ñoo ngi man lu sëñ bi wootee ñu dem demal ca kër ga rek nekkal ko ci loolu lan dem nag ba ñoom ñi ñëpp fi mu toll nii nga gis ne ci néeg bi yaakaar naa xam naa ñeen fukki it ñu jege nañ ko te ñun ñëpp ay doomi seex la loolu lanu sëñ bi boole ñu sëñ bi boole waaw ñoo nekk ci néeg bi waa ak verandaay bi rek waaw waaw yàgg na même daaw noonu la am na ci ñoo xam ne biig bi nga xamee ne duñ mën a ñëw biig fi la ñu ñëw ba minuit fi la leen fekk. ñu ànd ak ñun toog di waxtaan euh, ci sëriñ bee ko xëy dellu fi dool dafa beneen màggal gu gi tombeel ñooña ca la ñu dem ñoom. bi ñu xëyee ñoom ñëpp kër sëñ bi lan dajal séddale leen ñii dem fii ñii dem fii te yetti màggal moo daje. dañ leen a séddale ñee dem fee. ñii ñëw fii ñee dem fee yëpp ñëpp ci sëñ bay seen waay daal ci la ñuy doon ñu toll barki démb rek bi sëñ bi soxlaa ci école yi bi mu ko waxee bàyyi sëñ Mbàkke gi ngàcc mi jëwriñ yi léegi ñoom barki dem rek bi ñu duggee ci suñu groupe bi rek séddale ko bi ñu duggee rek jaay def wax jaayante yi maanaam lu mat ñaar fukki fan ak juróom rek dajalen ci 7 million waaw sëñ mi ci biir la bokk ku ne 100000 francs lan na laaj ñu joxe 100000 francs boo ko joxee loo dugg loo joxe rek ñu wàcce ko ci groupe bi groupe bi man mii di waxee yéen maanaam communication ki ci jiitu maa ci toog daanaka man ma ëpp sax lu may doxal bu ko defee ak ñu yoroon finance biig ñoom ñëw nañ fi ñoom it ñoo financé bu ñu ñëwee fii kenn ku nekk am na lu ñuy jël ci kees gi jox la ci ak li ñuy jëlee oto yi bërki démb rek bërki démb la ñu woowaat ginnaaw set millions yi la ñu woowaat joxoon ñu sasu yetti nag ñu war ko yóbbu ci genn kilifa gu doon màggal suñ dan ak euh, kilifa gu gun ko tudde won bis ñaari nak ñu yobbu ko fa ak bisab seigne Cheikh Abdou mbake ubitel jumaa ji mom seigne Cheikh mbake Gaynde fatima mom nit jënd nañ fa aw nak téméri junni yobbu ko fa té lool lepp rek day joxe ndigal rek Cheikh si jaayante wu bu ne jaayante rek wacce tabla bi kenn ku nekk lu way man nak ndax dañ na ci nangam nak la tambalé ñaari junni wala ñetti junni ku man lu op nak baax waye lool da bu mu non moy doxé ni sant bu baax rek ngi sant bu baax waaw. waaw ah, jërëjëf sëñ Ibrahima comme nin ko baaxoo def saa yu nekk rek nu fekk la fii nga yor kàddoog sëriñ bi yor kàddoog mbooleem eh, kër gi ci bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku sëriñ maxtar Mbay Kéré ci suba ba léegi taalibe yi jógee nañ fenn fu nekk kàddoo yi soññee yu jëm ci taalibe yi nga xam ne dañoo ñëw ngir jëriñu ci bisab sëriñ Maxtaar Mbay Kéré. waaw dañuy jëkkee wax alhamdulilahi rabil alamin rek sant yalla bu baax geureum Serigne Touba jaajëfal Cheikh Moukhtar Mbaye Kéré waaye nu am ci Serigne Touba rek ginnaw yalla ci mom la jaar muy nit ko xayni ab jullit la akkan àqan alquran alxuraan yalla yàlla euh, bu ñepp xaman suñu borom dimbali ko nag mu dajje Serigne Touba ay jamono euh, daal di jox bopam Serigne Touba bi mi jox bopam Serigne Touba sax ñi ko mu xam nañ nako yow day fi nga tollu Eh, defe nañ ne eh, kenn warta topp sa ginnaaw waroo topp ci ginnaaw kenn dañuy topp sa ginnaaw mu leen de ki ma dajeel leen na ci moom nekkut ci diggante ñaari feggu diggante ñaari feggu nag buñ la ko wax mooy kaamil bi ñaari feggu yi ko dar mu ne li ci li li nekk Sëñ Tuubaa nekkut ci diggante ñaari feggu mooy daal jàng alxuraan taxut nga am ko la may googu sunu boroom may la maanaam da ngay jaayante door a mën a am ci cir boobee jaayante googee nag la daal di jaayantee nag moom moo ko moo ko may lii ndax damay wax ne sëñ Matar li gën a sante yàlla mboolem li sëriñ Touba seexal ku ci du sëñ ma Balla Badiane moog sëñ Matar dong ñoo ci jege sëñ Touba 7 kilomètres à Touba ñeneen ñi ci des ñëpp ci àll ba lañ gore moom la ko yàlla may loolu euh, te sëñ Matar it amaan na leneen ci sëñ Touba euh, koor ni mu mel ci sunu boroom mu sant ko jullit yi ñu koy yendoo woor fanweeri fan ba dara desut lu dul korité bisu korité ñëpp daje njaareem ñuy xaar ku tedd ki mu ñëw bi mu ñëwee bi mu ne jëriñ daal ne euh, sëñ bi Ndiaye sëñ Malick Ndiaye ndax fere yëpp ñëw na mu ne ko mbakke ñi ëpp ñëw na mun ne kon mu ne ko julli mun ne ko ana Muxtaar Mbay Keere mu ne Mbàkke mu ne ko jiiteel fere sëñ Muxtaar dem ci kanam jiite sëñ Tuubaa bokk ci sàppe si mu jiite korité ba nu sëlmal sëñ Matar def xutba gi noppi ñaan Sëriñ Tuubaa wëlbatiku daal ne ku gis Matar mi texe àdduna ak àllaaxira Matar yaa baax foofa la ñu yendoo di siyaar sëñ Matar ba waxtu tisbaar jot fekk amoon na ndigal bu ñuy wax téere safinatul amaan julli gi ak koor gi bi mu matee rek ci la sëriñ bi daal di batale daal maa ngi dem ci ndigal li ma sëriñ Tuubaa joxoon bëgg mu mu fande Safinatul Amaan boobu doxal na ko fanweeri at ak ñaar ci julli ak koor ndigalal sëriñ Touba te wax nañ ne bi mu ko sëriñ tuubaa bëggee ku mu ko wax da ko joxal ngant ba mu ne yaakaar ne kan moo ko mën ñu ne ko Matar Mbay lan yaakaar ne sëñ Matar boo ko ko waxee dana ko def ci la amee ndigal loolu di ko doxal kon am na cër bu mag euh, tibb na loxoom ci suuf na ko loo mën a mën a ramb di nga desal mbooy àjjana kon nga xam ne sëñ Touba kenn xamul lu mu doon. Euh, mataar yaa baax loolu doy na dëkk gi nu dëkk Touba jigéen jumaa ji 7 kilomètres ku mu doyut loolu doy na ndax fi tool bu nu dëkkan feneen it fanweeri kilomètres ak nang wala ñeen fukk da ngeen ñu fa fekk mënuñoo ñàkk a ñëw Touba kon sant yàlla la léegi Touba nag dem na ba mëdd dëkk bi bi nu demee ba Touba nekk communauté rurale sëñ Abdou Lahad mi nga moo fi nekk lan Serigne Touba ku ne xam ko moo jëlaat dëkk bi andi communauté rurale bi ci communauté rurale Touba keroog bi ko sëñ Thierno déggee dem laaj ko ko mu ne ko maako ko def waaye ñu doon def noo xamul li ñu def Kéré mbay ci Touba la kenn mënu koo génne Touba waruñu koo xàjjale ci daraay Touba loolu jar naa sant yàlla. waaw ba tax na ci la commune bi dem ci la commune rurale bi demoon Touba ba yàlla dogal Touba tey di commune kon loolu jar naa sant yàlla. sëñ Mata nag ku ko xam ci jaamu yàlla nga ko xam jàng julli woor dugub ji mu daan béy di ko jox sëñ tuubaa jox gogum ko joron ci la seigne touba mu mujjën tudde ko Matar Dugu ba taxna kenn ku nek ci nun yeugal nga sa bop ne bo de bay bo baye dugub dang ko am mom xam nga ñak ko bay way sa boko baye bayee ko am mom barke bobu nak mo fi nek ba dess mo tay lolu mom xamal nañ ko sun bop kon lolu ak tiant la lolé nak ci la seigne Matar nekkan joge Cheikh Moussa Mbaye Kéré ku ne xam ko ci mu dox doxine wu ràññi ko ci daru khudous ci joxe addiya ak pep yakarna yeen ñi dekk Bawal saakoy pepp yi moom ku ne xam nga ko def ngeen ko yéen ñi nekk ci jataay bi def ngeen ko seeni waajur def ko ba tey ji bàyyu leen ko ba ci sëñ Cerno ba ci siñ Njaga barki démb laa sëñ Bass joxe na eh, ñeen fukki saako juróom loolu lépp mi ngi jóge ci taalibe it ndax bawal la bàyyi ko daaw maako yóbbu juróom benn fukki saako la ak juróom ren jii ñeen fukki saako la ak juróom te teewu ko nekk ci liggéey kon sëñ bi rek a fi ne na ñu doolee góor góorlu bu baax eh, di ñaanal Cheikh Moukhtar mbay Kéré ci bis bii ndax daa waxan ne jaayante euh, gàddaay dellu bokku ci moom bi mu jotee ndigal sëriñ Touba rek la daal di ñëw fii fi la nekk Serigne Thierno ne fi la nekk di jaamu yàlla ba wàcceeb liggéey ñu yóbbu ko Touba génnaatu fi loolu nag ak dogu la. loolu ci nag la ma Serigne Thierno waxan jamono yooyu tuux gi bari lool dëkk bi dem ba juróom-ñaari buntu kër ci des daal ne ko waa Serigne bi ñëpp a ngi dem Touba ndax nun du mës a nooree ji Touba sax mun na ndax booba gone moom loolu la wax mu ne moom jaayanteeg ga Sëriñ Matar jaayanteen ak sëriñ Touba day ba nekk fi sëriñ Touba nekk fi ba jóge fi dem Touba naa laay jaayanteeg Sëriñ mataar ba nekk fi ba jóge fi dem Touba xanaa sama ginnaaw de waaye diirab maa ngi fi du ma génn dëkk bi te xëy na sàmm dëkk bi moom it ci la bokk wattu ko ba tey ba ñëpp bëgg ko ba fi mu toll nii nit ñaa ngi tuxoo Touba di jaay seeni kër di ñëw di jënd fii ay kër di di di di sanc kon xëy na lépp kon la Sëriñ Abdou Lahad waxan ak la Sëriñ Tuubaa defan lépp daal ñëwaan kon nun nañ ko sante yàlla bu baax te jàpp kenn ku ci nekk nag euh, fa Sëriñ Tuubaa def sab taal moom foofu boo fa jàppee rek li nga bëgg di ko am àdduna ak àllaaxira waaw ndax daanaa dégg Sëriñ Mustafaa nee na moom moom du du du du du du nu mu tuddati nu maanaam mm, moom daal benn borom kër lay am wax nañ ne kilifa yi ko daan mas di santab liggéey sax danaa la demal ci seigne Cheikh Mbacke boko ko xé lu ma wax ma def ko ndax bëgguma la wax dila la seigne Cheikh soxla ma bu boba kon nan lay def kon nga pass passam fam tollu won ci seigne Cheikh moom Cheikh Moussa Mbacke man ñu ngi leen di ñaanal yeen ñep kep fu way jógee rek di ñew ci bis bi ngir yalla ak seigne matar yalla la yalla ndi ci jamm te lepp luñ fi sakku yalla nañ ko am lepp luñ fi ñaanal kilifa yi jitu muy seigne matar ak njowoon yalla na yalla jotale ci te sàmm ñu aad ñu sant nañ ñëpp na gërëm ñëpp ci turu Cheikh Mouhamadoul Bachir ak mboolem njaboot gi ndax tey jii it bu ma taxawoon fi kanamam eh, lii rek la may wax loo kon bu ma wéetee it mel ni ne taxaw naa ci kanamam rek ci kàddoom la ñuy waxee mel na ko yàlla doole sàmm te sàmm ñu sàmm mboolem taali yi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah